asalaamaaleykum mbokku internet yi nu nañ leen di rafetlu saa su ne seen ànd ak 5 TV dal leen jàmm ci li gën a fës ci xibaaru suba teel bi. li gën a fës ci xibaaru suba teel bi ñu dooree ko ak kii di maître El Hadj Diouf nag moom mi nga xam ne dafa confié dingi démb nag ginnaaw bu mu jógee ci mbas mi di Covid 19 ak nu mu ko dundee tax nag moom mooy xamle ne ne moom ren jii du dem ca màggalu Touba donte sax ñii di waa Touba daan nañ jël matuwaayu sëkk ngir rek mun a bañ a wàllale lii di jàngoro bi foofee mu ngi xamle waat ne lu gën a métti rek mooy. mooy daal di dundee virus bi di coronavirus moom la daal di xamal kii di président Macky Sall moom nag maître El Hadj Diouf ku ko gis xam ne gëj nañ ko gis ci télé bi feebar bi di Covid 19 nag moo ko téye ci ay jamono yoo xamante rek mu ngi ko doon dund ci yu métti métti ñu leen di fàttali ne sax màggal bi mu ci aajo rek ci ba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daal di exilé ci Gabon beneen xibaar rek soxal la xew ca Nioro nag lu tolloog fukki homosexuel lañ ngir mën a dépister bi ginnaaw bi association bi nga xamante ne mooy association nationale des communes pour la santé ñoom ñoo fa ñëwoon ni ki démb ngir rek mën a jàppale ñi nga xam ne ay homosexuel ki def ni ni mel rek mooy askan yoo fa nekkee ginnaaw ba ñu toogee gis ab jaaxle rek si lañ xam ne li fa xew ca sedeb ci nag du jàmm si noonu lañ daal alerte ki nga xamante ne mooy maire ba maire ba tamit toogul benn yoon dafa daal di déplacé wu dem ca sedeb ci sa waaye dafa fukk homosexuel manam ay góor jigen lañ fa fekk mère ba nak taayiwul ben yoon dafa daal di woote ñi di wa gendarmerie ngir rek ñu ñew def euh, seen liggéey gendarmerie bam exé egsee tamit dañoo jël liste ñi nga xam ñoy ñooy fukk góor jigéen yooyu ba leen limé ba paré kenn ku ne da nga dispersé way mère ba wul de ba tay ji dafa wo wajur yek association ya fa nekk rek ngir ñu amal ab sensibilisation ngir rek li ni mel la bañ fay amate euh, benen xibar bu tis nag di jógee ca Casamance ca gox bu naan na ben ancien combattant bu MSDFC jotee maanaam ñi nga xam ne dañ doon xeex ngir jàmm dellu si ca Casamance moom nag la ñu daal di rey euh, ni ki moom nag mu ngi wéyee suturu Amidou Diémé moom nag dafa toog rek téléphone am sonné am ñi koy woo rek tegtal ko mu ñëw fekk si leen si benn endroit moom Amidou nag dafa jàppoon ne sax ni ñu muy liggéeyal foofee la ci MSDC bi waaye ndekete ay sàmba booy yoo xam ne si moto la ñu yegg rek ku ñu jot daal di la faat moom nag amul benn ñaaw njort dafa daal di dem rek wuy ji leen bay mu eggee nag si lañ ko daal di dóor fetal ba mu faatu loole nag ak nekk tiis bu am ni ki démb ca Casamance ba kii di ñii di Amnesty International te Seydi Gassama ah, jiitu ko yëkkati ay kàddu rek di xam ne li ni mel rek dañ cee war a jóg ubbi ab enquête judiciaire ngir mën a xam ñi nga xamante ne ñoo def li ni mel ba pare rek daal di leen condamné te leen fermement ci at yu bëri ci kaso bi ngir loole mun a jóge ca Casamance. Ah, beneen xibaar eh, jugal soxal nag dee dee bu metti bi nga xamante ne moo am ca Tiwaawoon ah, ni ki démb daanaka télé yeeg rajo yëpp moom la ñuy waxtaanee soxal kii di Cheikh ki nga xamantene ne dafa pendre bopam ba pare jabaram di ak ki di domam bi nga xamantene mom lañ amone niki demu buñu sukkandiko ci le journal la la turbine et libération ñom ñoo indi xibaar yoyé ñu ngi xamal ne cheikh kan mom momé nak dafa jabaram mu ngi amone ñaar fukki at ak juróom jab dom ji nak mu ngi amone lu tollo ko ñaar moyen de 2 ans la amoon moom nag laata muy suicidé wu dafa amal lettre bo xamantene rek bind na ko ngir mën ko fa bayyi ci lu ñu xam ci mom rek nañ ni ne jangale kat la won ku ku calme bo xamantene amul benn problème ak nit ñi la ta sax muy def yi li ni mel nag amaloon ab jang ci guddigi lolé nak bañ di ba mu koy def kenn lu ci mom lo xam ap ab suspente mais nag kenn xamul li tax muy def li ni mel buñu ñu ci ñi nga xamantene nak ñoy témoy néna mom nak mu ngi won mu ngi andu nak jabaram sax nga won ko ci station bi nga xamantene fa lay liggéeyee lolé nak lepp mo jaaxal nit ñi ak lettre bi nga xamantene bind nako amna tamit ci biir lettre bobu ñi nga dalena sante ñen ñi nak amna yeneen wax yoo xam ne xaw na say ñagas ki ki nga xam ne mooy Cheikh nag police ñëw nañ ñu révélé foofu ngir mën a xam li ni mel waaye dañu gis rek moom moom dafa xaru waa jabaram nag ak doomam li leen rey nag dese naa leer xam naa ci kanam tuuti rek dinañ ci indi ay leeralaat moom kooram nag ña koo ko denc ca hôpital ba ngir mën a def ab autopsie. Euh, beneen xibaar tamit bu soxal wàllu moo dee ca benn restaurant bu nekkee auberge nekkee ca Malika ñu tuddee ko Cheikh Hadi nag lañ fa fekk benn néew euh, ci koo xamante sax jot naa jabar lañ fekk fofu mu faatu bu ñu sukkandikoo ci le journal observateur ñom nak ñoo def découverte bobé ci suba ci eh, defont bi nak ki nga xamantene mom mo faatu nak dafa andon ak ki di ciorom nak dem eh, dal di nosi foofu bu ñu ñëwee nak dañoo fekk rek li nga xamantene yaram nak yaram kessa lañ ko fekke à part serviette bi nga xamne mom la takké won ci e taayam eh, ci noné rek lañ ko jëm melni dañ koy étouffer e ngir mu mëna noy ki ko doon def nak nekk ki mu andalon mom ak gérante bi nga xamantene mo Jere auberge bobé waaye dafa fekk ne fekk na mom momé mu faatu ci noné ñi nga xamante nak, ñu ngi joindre police nak ci buñu sonné ci diko def mu nooyi dañu dal di joindre ñi di police ngir rek ñu mëna xol li ni mel police nak daan na ki nga xamné moy gérante ba ak ku mu andalon waaye buñu paré nak ki nga xamné moy gérante ba dañ ko bayyi mu ñibi kërëm jamono ji nak li di dépp ya manam koor ba ñango bayyi ci hôpital ngir mëna amal autopsie ba nopi dal di ubit ap l'enquête judiciaire ngir mëna xam ki def def li ni xibaar bu yees soxal rek kii di Babacar Diagne nekk président du CNRA ñu gën ko xam ci centre national de régulation de l'audiovisuel moom nag amal na ni ki démb entretien ak journal bi di Vox yu Populi euh, li ko lu mu indi rek mooy jaaxle la def ak série yi nga xamante ne ñu ngi koy teg fii ci Sénégal moom nee na lu mu seetlu nee na chaîne télévisée yi wala sax ñi nekk ci YouTube ji amuñu lenn lu ñuy teg lu dul lépp lu ñu teg ci société bi mooy wàllum sexualité ak violence ba tax nag loolu mu koy ñaawlu noppi na ci série bi di infidèle nag ginnaaw bi nga xamante ne Mame Matar Gueye ak ñu ñoom nag daan nañ indi euh, maintes fois des reprises ngir ñu mun ko jëlee ak yenn séquence yu ñaaw yi ñuy wane te dafa dëppoo suñu aada ak cosaan moom Babacar Diagne mu ngi ñaawlu lu bëri ci suñu stars yi tamit dañoo muusul amuñu xalaatu àdduna ñoom li ñu bëgg rek mooy di def li ñu mel ni ñaaw di ko dugal ci réseaux sociaux yi ba pare nit ñi di ko xool pare noppiwul dinaa nag li ñu ko fi jëlee ndax dañu am aada ak boo xam ne dafa dëppawul ci lu bëri li nga xamante ne ñu ngi koy joué euh, ci jamono ji ñu toll ñi nga xam ne ñooy tegg série yi tamit war nañ xoolaat seen bopp bëgg am buzz waru tax ñu jël yenn que séquence yi di ko dugal ci net bi ndax loolee day lool xale yi moom président Babacar Diagne yëkkati woon ay kàddu bi dina ci def kent lay kàttanam ngir mën a euh, régler li ni mel fii ci Sénégal bu ñu noppee Sénégal naka dañuy daal di dem ca Mali fekkee discussion yi am ak ginnaaw nag coup d'état bu ñu amaloon kii di IBK ñii di militaire nag ñu ngi waxtaan ba tey ak ñii di CEDEAO waaye li ñu bëgg rek mooy ñoom militaire yooyee dañoo bëgg a nekk ñetti at ci nguur gi ba tey jii nag nangul nañ kii di IBK mu daal di dellu ci këram waaye tamit bu amee ay soins médicaux yi nga xam ne war na ko amal bitim réew mun na ko def mu mel ne nag ba tey jii IBK nag na noppalu ndax nguur moom doote fa nekkat yi moom ki nga xamante ne ak Boubou see nekkoon premier ministre am tey jii sax dinañ amalaat ak réunion ñu ak waa euh, CEDEAO beneen xibaar a soxal ñi di waa Congo Brazzaville mu leen di fàttali ni seen ancien président di Pascal Lissouba ñàkk na bu génn na àdduna tey jii ca France ba muy faatu am na juróom-ñetti fukki at ak moom nag yàlla may na ko ndax ba muy faatu mu woon ci wetu jabaram ak doomam bii di Jérémy moom nag bu mu demee ca foofu yàgg na fa ginnaaw bañ ko bañ ko renversé ca atum 1997 ba ko kii di Denis Sassou Nguesso wutoo ci nguur bi la daal di quitté définitivement Congo daal di installé wu ca. Euh, France wér gu yaramam moo ko mayatul woon nag mu diriger ci wàllum politique looloo ko téye woon foofee euh, moom nag bokk na ci la nekk na ci deuxième président euh, congolais bi faatu nag ca France beneen xibaar soxal ñi di ko juróomi sénégalais yi nga xamante rek dañ leen a faatoon ca Denver ginnaaw nag police enquête yu muy amal rek ñu ngi ciy daal di am information seen juróomi néew yi nag dinañ indi fii ci Sénégal niki alarba bu ñu sukkandiku ci muy Sarr ak ki nga xam ne mooy directeur consulat Sénégal. नमूने के Euh, ca euh, ca Amérique di El Hadj Ndaw ñu jeexalee xibaar yi ak lii di PSG nag mi nga xam ne dafa ñàkk ni ki démb Ligue des champions ci kanamu Bayern ci 1 but yi ñu jeexalee xibaaru mbas mi si 812 tests yi nga xam ne amal nañ ko jàppale na am nañ 64 cas nouveau cas am nañ 140 40 patients ñoo xam ne dañoo war ba ñibbi seen kër waaye tamit am nañ tey 45 cas graves yoo xam ne ñu ngi ci salle de réanimation tey jii mbas mi jëlatina lu tolloo ko ñetti nit ñoo xam ne rek mbas mi leen di yóbbu ñun di ñaanal yàlla xare leen arjana ñi nekk ci lal yàlla yóbbu leen euh, fëgg seen bopp ñu ñibbi seen kër mbokk yi mu nekkoon na xibaar yi gënoon fas si suba si fii ci 5 TV di ñu def dara di leen jaajëfal si ànd beeg déglu yi saa su ne waaye nag di leen fàttali ngeen def seen abonnement ak seen i jam ngir ngeen mun a amal xibaar yi fas fii ci réew mi